ku risque de contamination ñëpp ay xalaat CICES ndax CICES dafa doon barab boo xam plus de 80 des événements sociaux du Sénégal de de Dakar se passe au CICES kon may dalal xelu nit ñi CICES bi président jëlee décision boobu ñun bokk nañ ci ñi jëkk réagir en annulant événement yi ñu fi programmé woon yëpp kon fii événement jeex na fi du événement tant que amuñu ci ndigal. ñàkkut njeexital ci wàllu koom waaye wér-gu-yaramu Sénégal wér-gu-yaramu doomu aadama yi moo ëpp doole xaalis biñ biñ bi ñu war a jëlee ci koom mi ñu teg ci ne comme kër gi dafa am ñu fiy liggéey si comme kër gi dafa am ay locataire du site ñi fiy stocké ceeb ak yooyu comme kër gi dafa am ñu fiy dugg même bu ñu bu ñu bu ñu bu aussi événement yi def nañ benn dispositif boo xam ne ku fiy dugg di nga raxasal loxo. So dugg di nga sa jënd javel ak savon def même oto yi dugg dañuy taxaw raxas seen loxo su ngeen jógee fii mën ngeen ko filmer kon moom dugal na loxoom ci responsabilité c'est un lieu potentiel de contamination